bi loolu wee ñu jële yeesu ci kayif yóbbu ko ci kër borom réew ma ci waxtowu njël la woon way yawut ya yeeguñu ci taaxum kaw ma dañu bañoon a taq sobe ngir man ma lekk ci ñam màggalu jéggi ba loolo tax pilaat borom réew ma genni dajeek ñoom mu laaj leen lu ngeen di jiin waa ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon duñu la ko jébbal si pilote ne leen jël leen ko yéen te atte ko ci seen yoon yawut yi ne ko yoon mayunu nu atte nit teg ko de noonu la kaddu yeesu gi amee ci limu misaaloon ni mu wara faatoo gannaaw loola pilat duggaat ci taaxum kaw ma woo yeesu ne ko ndax yaa di buuru yawut yi yeesu tontu ko ne ndax yaa ko xalaat wax ko am dañu la ko xelal ci man pilat ne ko mbaa xalaatoo ne man yawut laa sa xeet ak sëriñ su mag si ñooma la jebbal lan nga def yeesu tontu sama kilifteef nekkul ci àddina bu sama kilifteef nekkoon àddina sama surga yi dinañu xeex ngir bañ ñu jébbal ma yawut yi waaye sama kilifteef nekkul àddina pilot nekko ko kon yow buur nga yeesu tontu ko wax nga ko buur la li moo tax ma juddo ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg gi dina nangu li ma wax pilat laaj ko ne luy dëgg gi bi mu waxee loolu ba noppi pilat daldi gennaat jëm ci yawut yaa ne ci moom genn tooñ seen aada laaj na ma bayil leen kenn saa suñuy def maggalu besu jéggi ba xanaa ma bayil leen buuru yawut yi noonu ñu daldi yuuxaat déedéet waxuñu ki barabas lanu wax fekk barabas moom taskatu réew la woon noonu pilat joxe ñu dóor yeesu ay yar xarekat ya rabbakaal ak dëgg teg ko ci bopp yeesu solal ko mbubbum xarekat mu xonq cur ñu di ko jegeñ si ko pes naan ko nuyu nanu yow buuru yawut yi pilot gennaat ne leen gis ngeen maa ngi leen koy indil ci biti ngir ngeen xam ne ji gisuma ci moom genn tooñ yeesu nag tegoo mbubbum xarekat mu xonq mi ak kaalak dég gi pilat it ne leen waa jaangi waaye ko gisee sëriñ su mag sa ak alkaatiit ya di yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci banta ba mu dee pilat ne leen ko yeen daaj ko ci bant ndaxte gisuma ci moom genn tooñ yawut yi ko ne am nanu aw yoon te ci yoon woowu war na dee ndaxte teg na boppam doomu yàlla bi pilaat dégge wax jooju dafa gën tiit dugg ci taax ma daldi ne yeesu foo joge waa yeesu tontuwu ko pilaat ne ko man ngay bañ a waxal xanaa xamuloo ne am na sañ-sañ bay la te am naa itam sañ-sañ daaj da ci bant yeesu tontu ko ne amuloo benn sañ-sañ ci man sudul bila la yàlla jox looloo tax ba ki ma jébbal ci say am na bakkaar bi gina rey boobu nag la pilaat daan fexe ba yeesu waaye yawut ya di yuuxoo naan boo bayee kii doo xaritoo buur bi sesaar nit ku teg boppam buur noonub sesaar la bi pilaat déggee loolu mu daldi génne yeesu ci biti dem toog ci jalub attekaay ba ci fu wax bérébu doj ya ci làkku yawut ñu naan ko gabata ci bés bu ñuy waajal màggalut jéggi bala woon ci weti digg bëccëg pilat ne yawut ya seen buuru angi waaye ñuy yuuxoo naan na dee daaj ko ci bant pilat ne ndax seen buur bi dema ko wara daaj ci bant sëriñ su mag ko amunu benn buur bu dul sesaar noonu pilat jébbal leen yeesu ngir ñu daaj ko ci bant bileen ko pilat jébbale ñu jël ko yóbbu yeesu ci boppam gaddu bant ba génn ngir dem ci fa ñu wax bérébu kaaŋu bopp ñu koy wooye golguta ci lakku yawut foofu la xarekat ya daaje yéesu ci banta ba ci noonu it ñu daajaale ñaari nit ci wetam mu nekk ci digg ba pilaat santaane itam ñu bind teg ko ci kaw bant ba ñu ko daajoon mbind ma lii la wax kii mooy yeesum nasaret buuru yawut yi mbind yu bari jàng nañu ko ndaxte fa ñu daajoon yéesu ci bant ba jege woon na dëkk ba te mbind ci lakku yawut la woon ci lakku waa ak ci gerek noonu sëriñ su sa yawut ya ne bul bind buuru yawut bindal rekk kii moo mooy buuru yawut yi pilaat tontu leen ne xas naa ko bind du deñ xarekat yaa bi ñu daajee yeesu ci banta ba ba noppi daañu jël ay yéreem seddale ko ñeenti cër ku nekk benn jël nanu it mbubbam bu nu ci kaw ba ci suuf amul benn ñaw xarekat ya di waxante naan mbubb mi ko xëtti waaye nanu ko tegoo ay bant ngir xam ku koy moom noonu la waroona amee bi mu naan seddoo nanu samay yére tegoo ay bant sama mbubb loolu nag la xarekat ya def ci wetu bant bañu daajoon yeesu yaayam a nga fa taxawoon moom ak doomu ndeyam ju jigéen maryaama jabari clepas ak maryaama mi dëkk magdala bi yeesu gisee yaayam taxaw ci wetu taaliba bi mu bëggoon mu ne ko soxna si a ngi neeti taaliba ba sa a ngi nii boobu la ko taaliba ba yóbbu këram yor ko bi loolu weyee gannaaw yeesu xam na ne lépp mat na léegi mu nag ngir amal mbind mi dama mar amoon na foofa guttu bu fees ak bineegar noonu ñu jël sagar tooyal ko ca takk ko ci bantu garab gu ñuy wax hisop teg ko ci gëmmiñ yeesu bi yeesu muucoo bineegar bi mu ne lépp mot na noonu mu siggi del ruwam yàlla keroog bañu dee waajal bésu noof bala woon te yawut ya bugguñu neew ya des ci bant ya ndaxte bésu nooflaay boobu fonkoon nañu ko lool ñu ñaan pilat mu damlu tànki ñañu daajoon te jëlle leen fa noonu xarekat ya dem damma tànki ku jikk ka teg ca ka ca des daajaale woon ak yeesu bi ñu agsee ci yeesu dammuñu ay tànkam ndaxte gis nanu ne booba faatu na waaye kenn ci xarekat ya daldi jël xeej jam ko ko ci wet ci saa sa deret ak ndox di tuur kiy nettali mbir yooy da ca bëtam te li muy wax dëgg moom ci boppam xam na ne li muy wax dëgg ngir yéen itam ngeen gëm ndaxte loolu dafa xew ngir mbind mi am benn yaxam du dàmm lenn it mbind mi wax na ko dinañu gis jamoon gennaaw loolu yuusufa mi dëkk arimeti ñaan pilat ngir yóbbu neewu yeesu yuusufa taalibe yeesu lawoon ci kenn yegul ndaxte dafa ragaloon yawut ya pilat may ko ko yuusufa daldi dem yóbbu neewu ko dem itam ñëw moom mi masoona seeti yéesu guddi mu indaale lu wara tolloog fanweeri kilo yi cuuraay lu ñu defare nabbi miir ak i banti aloos ñu jël neewu yéesu laxas ko ci càngaay boole ko ak cuuraay li ni ko yawut yi tammoo def bu ñuy waajal neew toolaa nga woon ci wetu barab bañu daajoon yeesu te ci tool booba amoon nafa fa bàmmeel bañu musul suul kenn ci bés waajal la woon ba yawut ya doon waajal bésu lay ba te bàmmeel ba jege woon na foofu lañu denc yéesu bés ba jiitu ci ay bés ga maryaamam magdala jog ci fajar dem ci bàmmeel ba bi mu agsee mu gis ne dindi nañu xeer wañu ko ube woon mu daw dem ci simon piyeer ak ca beneen taaliba ba maanam ka yeesu bëggoon ne leen jële nanu neewu borom ba ci bàmmeel ba te xamunu fu ñu ko yóbbu piyeer ak beneen taaliba ba daw dem ci bàmmeel ba ñoom ñaar ñépp a ngi doon daw waaye beneen taaliba ba raw piyeer jékk ko ci bàmmeel ba duggul nag dafa sëgg yër seen càngaay la ca suuf noonu Simon Piyeer mi ko toppoon aksi daldi dugg mu seen càngaay la ci suuf ak kaala ga muuroon bopp yeesu waaye kaala googu àndul ak càngaay la dañu ko laxas teg ko ci wet noonu keneen ka jiitu woon ci bàmmeel ba dugg si moom itam naka la gis daldi gëm taaliba yaa xamaguñu woon mbind mi doon wone ne yeesu dafa war a dekki noonu taaliba ya dëppa ñibbi maryaama nag moom ma nga desoon ci biti ci wetu bàmmeel ba di jooy bi muy jooy mu sëgg ci biir seen ñaari malaaka yu sol mbubb yu weex toog ci bereb ba ñu dencoon yeesu kenn ka fee bopp bi ki ci des ci tànk ya malaak ya laaj ko ne jigéen ji looy jooy mu tontu leen ne dañu jël sama boroom te xawma fu ñu ko yóbbu bi mu waxee mu geestu seen yéesu mu taxaw waaye xamul woon ne moom la yéesu laaj ko ne jigéen ji jooy koy seet mu foog ne borom tool bala ne ko sëriñ bi bu fekkee yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jeli ko noonu yeesu ne ko mariyaama mu walbatiku lakk ko cib yawut ne ko rabbuni rabbu ni mooy tekki kilifa gi yéesu ne ko bu ma teye ndaxte yëgaguma ci baay ba waaye demal ne samay mbokk maa ngi yéeg ci sama baay bi seen baay ci sama yalla ji seen yàlla noonu maryaamam magdala dem yégali ko taaliba ya ne leen gis naa boroom bi mu daldi leen nettali li ko wax bés boobu ci ngoon sa taaliba ya nga daje woon ci genn kër tëju ci biir ndax ragal yawut ya yeesu nettal la ci seen biir ne na jàmm wàcc ci yeen mu daldi leen won ay loxom ak wetam bi ñu gisee borom bi taaliba ya dal di bég yéesu dellu ne leen na jàmm wàcc ci yéen ni ma baay bi yónnee noonu laa leen di yónnee man itam bi mu waxee loolu mu ëf leen ne sol naa xelu yàlla mu sell mi ñi ngeen di baal seeni bakkaar baal nanu leen ba noppi ñi ngeen baalul baaluñu leen fekk na tomaa mi bokk ci fukki taaliba yi ak ñaar te turam di tekki seex bi nekku fa woon bi yeesu ñëwe yeneen taaliba yi ne gis nanu borom bi waaye mu ne leen su gisul fu ñu daajoon pont ya ci ay loxom te defuma ci sama baaraam su ma tegul it sama loxo ci wetam duma ko gum mukk bi ñu ci tege ay bés taaliba yeesu ya dajewaat ci biir kër ga toma itam anga fa woon buntu yépp tëj woon nanu waaye yeesu nettal ci seen biir nee na jàmm wàcc ci yeen noonu mu ne toma indil sa baaraam fii te seet sama loxo indil sa loxo teg ko ci sama wet bayil di weddi te nga gëm toma tontu ko ne sama boroom sama yàlla yeesu ne ko li nga ma gisa tax nga gëm ki bég mooy ki gëm te gisuma yeesu wone na it ci kanamu taaliba ya yeneeni firnde yu ñu nettaliwul ci téere bi waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yéesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen ngëm may leen ngeen am ci moom dund gi bi ñu ca tegee ab diir yeesu feeñu waat na ay taalibem ci tefesu dex gu ñuy wax tibariyat nii la deme woon taalibe yeesu yi àndoon nanu simon piyeer tomaa turam di tekki seex bi natanayel mi dëkk kana ci diiwaanu galile doomi sebedi ak yeneen ñaari taalibe simon piyeer ne leen maa ngi nappi ñu ko nun it denuy ànd ak yow ñu dugg gaal daldi dem waaye guddi googu jàppuñu dar ci fajar gi yéesu taxawu ci tefes ga waaye taaliba yi xamuwuñu ko yeesu ne leen nag mbokk yi xanaa jàppu jen ñu ne ko déedéet mu ne leen sànni leen mbaal mi ci ndey jooru gaal gi bu ko defee ngeen jàpp ñu sànni fa mbaal ma mu fees ak jën ba mënuñu ko woon ndox mi taaliba ba yeesu bëggoon ne piyeer boroom bi la bi simon piyeer déggee loolu dafa woddoo mbubbam ndaxte dafa summeeku woon daldi soobu ci dex gi yeneen taaliba ya xëcc mbaal mi fees del ak jen jeme ko ci tefes ga ndaxte gaal ga sorewul woon diggante bi waroon na tolloog téeméeri meetar bi ñu ñu gis ab taal ñu ciy làkk ay jen teg mburu ci wet ga yeesu ne indileen ci jen yi ngeen jàpp simon piyeer yeeg ci gaal ga daldi xecc mbaal ma ca tefes ga mu fees del ak jën yu mag mootoon na téeméeri jën ak juróom fukk ak ñett te li muy bare bare lépp taxul mbaal ma dog yeesu ne leen ñëw leen ndekki kenn ci taaliba ya ñemewu ko laaj ki mu doon ndaxte xam nanu ne borom bi la yeesu jegeñ si jël mburu mi jox leen it jën bi yeesu dekkee ba bi muy ñetteelu yoon bi mu feeñu ay taalibe bi yeesu dekkee ba tey bii ñetteelu yoon bi mu feeñu ay taalibeem bi ñu ndekkee ba noppi yeesu ne simon piyeer simon doomu yuwanna ndax gën nga ma bëgg ni ma ñii bëgge mu tontu ko ne aha kay borom bi xam nga ne bëgg naa la yeesu ne ko toppatol ma sama mbote yi noonu mu waxaat ko simon doomu yuwanna ndax bëgg nga ma mu ne ko aha borom bi xam nga ne bëgg naa la yeesu ne ko sàmmal ma sama xar yi mu neeti ko ñetteel bi yoon simon doomu yuwanna bëgg nga maam piyeer am naqar ci li ko laaj ñetti yoon ndax bëgg nga ma mu tontu ko ne boroom bi xam nga lépp xam nga ne bëgg naa la yeesu ne ko toppatool ma sama ci dëgg-dëgg piyeer maa ngi la koy wax bi nga dee ndaw yaa doon takk sa gëñ di dem fu la neex waaye boo màggetee di nga say loxo keneen takkal la sa yóbbu la foo bëggul ci baat yooyu la yéesu daan misaale nan la piyeer wara faatu ngir jullil ndamu yàlla noonu yeesu ne ko toppal ci man piyeer geestu gis taaliba bi yeesu bëggoon di ñëw ci seen gennaaw taaliba boobu mooy ki soonu woon ci yéesu ba lekk te laajoon ko ne borom kan moo lay piyeer gis ko dal di ne yeesu kii nag borom bi nu muy mujje yeesu ne ko su mu dundo ba ma dellusi lu ci sa yoon yow toppal ci man noonu am ci mbokki taaliba yi ñu xalaat ne taaliba boobu du dee moona yeesu musul ne piyeer du dee waaye li wax mooy su ma mu dund ba ma dellusi lu ci sa yoon taaliba boobu mooy seede mbir yooyu bind leen te xam nanu ne li wax dëgg la yeesu def na yeneen jëf yu bari suñu ko daan nettali bind lépp xalaat naa ne téere yi duñu xaj ci àddina